asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye ñaanal jëwriñu ëtt bii ñu toog di sëriñ Ibra Xuja Mbàkke yal na ko yàlla may fan wu gudd lool wa ànd ak wér-gu-yaram te defal ko mbooleem njabootu sëriñ Mandumba gépp defal ko mbooleem njabootu sëriñ Mudu Xaban gépp mbokk yi noo ngi am mbégte ti toog ci jataay boo xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayu waajal liggéey bu am solo la mu di ziare général bi nga xam ne baaxoo nañ di ko amal ca Dendey di ko defal sëriñ Mudu Xaban te tey jii sëriñ Ibra Xuja nekk ci bopp kër ga sëriñ Tuubaa inna allazina ila sarzara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw saara kon siyaare fu ko waay mën a def te def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa mën nga caa tàggoog bàkkaari àdduna ak yooyu alaaxira bis boobu nag la waajal mu war a nekk juróom-benn fan ci weeru janvier moo tax ñu ngi toog fii ci jataay bi nga xamante ne bii sëriñ Koso Mbàkke moom seriñ sëriñ Modou Xabaan mi nga xam ne moom la fi sëriñ Ibra Xuja bàyyi mu yor kàddoom mu ànd ak rakkam Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ak seen njaboot gépp ñu toog ngir fas yéene waajal bis boobu moo tax bis bi danañ jox kàddu gi sëriñ Kosso mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi mu leeral ñuy ziyaare bi ak niñ ko baaxoo amee soññ ci taalibe yi su noppee danañ ko jox sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke miy wax ci turu mbooleem sët yi nga xamante ni bii ñooy waajal conférence bu mag bi ñuy amal te conférence boobu war a nekk ajjuma di doon la 5 janvier te ren jii ñu dara jaale conférence ba sëriñ Ibra Xujja mi nga xam ne moo doon taawub sëriñ Mandumbe ak njabootam toog fi danañ jox kàddu gi itam sëriñ Xabaan Mbàkke moom sëriñ naa Tawa mi nga xam ne mooy wax ci turu parrain bi nga xam ne moo di sëriñ Ibra Xujja su ko defee ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Koso mi wax ci turu sëriñ bi. kàddu yi ñu fi war a yëkkati sëriñ Cheikh Bintu mi nga xam ne mooy jëwëriñi sëñ Ibrahima Xujja moom barab bii kàddu yooyu moo moom ndax mooy jëwriñi sëriñ Ibrahima Xujja Mbàkke mu war a nekk ci kanam. di dégle ñuy def muy tere ñuy bàyyi kon ñi fi ñun ñi fi teew ñëpp ay ndawam lañ ay taalibeem lañ yoo xam ne nii li ñu fas yéene mooy ne ci ginnaaw lu mu digle ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko. li kàddu yi waroon wax nag ginnaaw teew fi ñun ñoo koy waxal la jiitu ci kàddu yi moom sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacké bi fi nekkal euh, Cheikh Amadou Ndoumé nekkal fi sëñ Xaban mi ngi nuyu. sëriñ Mountakha mi fi nekkal Seyxul Xaddim mi ngi koy siyaare mi ngi dolli kóolite ci moom akuk cofeelam akuk taalibeem di ko ñaanal yàgg fi ak wér ah, njariñal jiina jila la njariñal taalibe yi la seen amal na leen ak seen dimbal kon nag ñu ngi ko ñaanal yàgg fi ak weer di ko ñaanal moom itam moo ñaanal sëñ Ibrahima Xujj Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkal Seexul Xadiim moo fi nekkal suñ mu raxabaan nekkal fi Seex Amadu Ndumbe dañ bàyyee ko sas wu rëy woo xam ne nii li si fas yéene mooy dara du ci booy dara du ci sooxe dara du ci ñaaw lépp day rafet ba àgg fañ ko bëggee léegi nag la mu waroon a wax te suñ Seex Bintu war ko koo waxal ñun ñoo koy waxal mooy mi ngi ko mi ngi ko yëgal jullit yëpp bàyyiwul kenn du ko sëtti sa yu xaddim yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak fu ñu fi mën a nekk di ko yëgal seexi sayxul xaddim yi nga xam ne ni ñoo fi nekk di ko yëgal mboolem yoonu murit di ko yëgal mboolem jullit yi di wax ni ñu ngi sàkku seen ak teew ak seen ak ñaan yàgg nañ leen a ñaan yàgg nañoo ñaanal ñun yàggal ñu leen ñaanal danañu ñaanal laat ci biis bi ba nam daa rafetee lu ko raw mu rafetee noonu ñi nga xam ne nii nag Cheikh dund Ndoumbe mooy seen bunt ci sayxul xaddim sëñ Ibrahima Khoudia di seen jëwriñ nañ xam ne bis bii seen bis la bokkuñ koo kenn ñoo fóore jiitu ku feye ñoo la war a teeru ñoo la war a dalal ñoo la war a teral ñoo la war a gunge kenn ku nekk na jàpp ne bis bii moom moo ko war a defar lépp loo xam ne luy defar la ci xel ak ci jëf mu def ko lépp lu mu ci mënul mu seet kam yaakaar ne bu ko defee dana mën na sotti loolu bu def ko kenn ku nekk daal la jàpp ne luñ ciy def moom lañ koy dimbalee jàpp ne mooy jëwriñ ji moo war a moo war a saytu lépp sëñ bi nag ci biir lay mën a nekk waaye ñun nag ñoo koy nekkal ci bitti la nekk ka ne ci biir mun ta xam la ni ci bitti ñun ñu nekk ci bitti na ñooy seet la koy rafetal ak la koy mottali lépp ñu def ko te bañ cee bañ cee sooxee li ñu jottali sëriñ bi muy sëñ Cheikh Bintou tam jóge ci sëñ Ibrahima ko jaar ci ñëw fi ñi loole addiya ci la bokk a addiya nag képp koo xam ne am murit nga addiya danga ko war a fàgg joxe ko donte laajuñ la ko buñ la ko laajee nag war nga koo mën a joxe te joxe koo ko dafa war a jàppandi te ki nga xam ni mooy mooy mooy mooy Cheikh Amadou Ndoumbé mii ba ci sëñ xabaan mii ba ci ñii la ñuy bay dañ koy joxe ba noppi wëlbatikuwaat joxewaat addiya kon nag addiya joojee di amoon ci tàmbaloon ci sëñ mbundu mi jaar sëñ moo tax xabaat ñëw ba ci siib ruq ji addi jooju ba tey moom la ñuy fàttali kenn ku nekk na ca def yitteem boo fexee ba daan sa addiya loo songati daan ko boo fexee ba sa addiya daan la loo songati loola daan la. ñu leen digal ak a fàttali conférence bu ñu amal la cinq ajjuma le cinq gannaaw gee ca Dendey te bi ñu war a waxtaanee mooy annafu xalqullah jëriñ bi ndeef yàlla yi suñu bokk sëñ Mbàkke Abdourahmane moo ko war taxawee. ñu ngi ko ànd nag mbooleem ñi ñu bokkal si Ahmadu Ndimba ñëpp wakka sëriñ Abdou Xujja wakka sëriñ Abdou Rahman wakka sëriñ Abdou Ummi wakka sëriñ yëpp ñu ngi ko yëgal di ko yëgal wakka sëriñ Touba yi di ko yëgal seex yi di ko yëgal mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn conférence boobu nag ñu ngi ko yëgal mbooleem jëwriñ yi aju ci kër gi yëpp alaaji sëriñ Gueye mu si alaaji Seex Gueye mu si mu si Modou Xaban sëriñ Xaadim Gueye mu alaaji sëriñ Gueye alaaji Xaban Gueye mu si Matar Gueye ak mbooleem askanu Ngeyeen ñu ngi ko yëgal di leen ci woo te xam ne bis bi ñoo ñoom ñoo ko bokk kon daal sëriñ Abdourahmane nee na ak soxna Ndeye Diop bi nga xam ne moo teewal jigéen ñi ñu ngi sàkk ñu ngi ciy bàyyiwuñ kenn képp ku dégg suñu kàddu ak foo mën nekk ñu reew ci conférence bi di la ko yëgal di la ko fàttali fas ñu ko ànd ak yéen ñu ñëpp bàyyiwuñ ci kenn di yëgal bisu màggal gi ko yëgal monsieur Amadou Ba di ko yëgal gouverneur de la région bu Diourbel ak préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Kayal ak monsieur ak mboolem chef de service yi nekk ci diggante bi yëpp ñu ko ñëgal ñëpp bàyyoon kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, kaddu yi nag du kaddu yi mbégte la rek ak kaddu yi cant ndax siyaar bi euh, ku bokk ci kër gi rek wala nga bokk ci yoonu murit te sëñ Madou Ndumbe am ci yow wàccuwaay xam nga ni siyaarub dende yi kenn du la ko fàttali ndax xam nga ko waaye nag ren da ca am taxawaay bu ko bu ci am solo boo xam ne dañ koo def ngir mbokk ak gën a boole bokk gi ak gën a boole kër gi mooy dañoo yëkkati euh, am ngont moo xamante ne dañ ciy def conférence boo xam ne waxtaan lay doon waxtaane sëñ Madou Ndumbe waxtaane sëñ Modou Xaban euh, waxtaane kër gi ñu jël nag waxtaan woowu ak ngont moomu cërale ko Serigne Ibra Khoudia mi nga xamante ni moo jëkk nekk xalifab Seex Madou Ndumbe di way jur Serigne Seexuna Tawa euh, yàlla dogal ren ñu jàpp ko le cinq janvier euh, bu ñu jullee gee ba noppi defe naa ci waxtu woowu lañ koy amal sëriñ daam nag mi ngi soññi ñëpp di soññ képp koo xam ni suñ borom dogal na mu am ak yow benn alaaxa benn jëflante rek mi ngi lay soññ ci bis boobu ak ci ngont moom di la ci woo bëgg nga teew si ci teewal si ko ci ndax bis bu ko ñor la ngont mu ko ñor la ndax kenn ku ne kilo boole ci sëñ Touba rek moom moom rek moo la boole ci sëriñ bi moom nga am. kon bu ñu yëkkatee cër bu toll noonu cërale ko sëñ Ibra Xuja te defe naa ñi ngi koy sog a tàmbali tàmbalee ko ca ka jëkk loolu day wane ni kon kër gi nasu na kër gi nekk nañu benn muy doxin wu rafet sëñ daam nee na mi ngi ci woo ñi mu bokkal sëñ Ibra Xuja ñëpp di ci woo ñi mu bokkal sëñ Seexuna Tawa ñëpp góor ak jigéen di ci woo taalibe yëpp nag taalibe bu aju ci kër sëñ Madou Ndoumbe rek sëñ daam nee na mi ngi laa ciy woo nee na mi ngi ciy woo bokki mbusoobeem yeeg ak bokki gede yi tam mi ngi woo ñëpp mi ngi woo bokki bokkam yi nga xamante ne ak mi yi nga xam ne bi mu nekkee bitim réew ak ci biir réew mi suñ borom booleel na leen ak kóllëre ñu koy dox ak moom mi ngi leen ciy woo ñoom ñëpp te di leen ci soññi euh, te di leen ci gàttandu te di leen ci nekk di leen ci xaar euh, waxaan na ma it ni naa wax ni mi ngi rafetlu tey tey jaajëfal euh, sëñ Ibrahima eh, sëñ Ibrahima Khoudia mi nga mi nga xam ne moo fi xalifa sëñ Mandoumbe ñu tudde ko sëñ Ibrahima Khoudia miñ tudde ngont mii sëñ Ibrahima Khoudia turandoom woowu nag mu doon lum fonk nag ndax man am na lum ci waxtaaneek ak man ba tàyyi waaye comme loolu du du jataay bi li ñuy gàttale rek mooy daal ñi ngi ci woo ñëpp. ni noo ngi wax ci turu dongay tërbiye muy daayira Rijaanu Laahi bu kër Serigne Momadou Xaban Mbacke ci njiital Serigne Talla Mbacke mais ci état moom soxna Maguette Kane ak suñ suñu président du Fall Godj mi ak suñ mbay gi mi teewal dongo yi ak Mat Singor mi nga xam ni moo nekk coordonnateur bi ñi nga wax ci seenu tur di wax ni liggéey bi itam noo ci ciy soññi ñëpp kenn ku ci nekk fa nga ci jàppoon na nga ci loolee jàppaat bu baax a baax di wax ne liggéey bi itam fa mu tàmbalee moo di dongo tër bi ji ñoo daan siyaare Serigne Mamour ci dende booba ñetti nit ak ñeent rek la woon kër Cheikh Talla lañ ko tàmbalee woon keroog bañ fa jëkkee siyaare benn xar lañ fa rey xar mooma sax jeexul mujj nañ di ko séddale ca dëkk ba sëriñ maam Mor woote ko ni ko kon nañ ko def ci rele Dendeye mu doon bisub Dendeye kon dafay mel ni kilifa yi waxe mooy Dendeye ku leen di lebal lebal leen ci bis bi ku leen di fay leb fay leen ci bis bi kon loolu itam nag noo ngi ciy woo bokki donga yëpp ak bokki taalibe yëpp di wax ni kenn ku ci nekk fa nga ci tàmbalee woon ak fa nga ci yemoon daaw fas nañ yéene ren nga yokk ko bu baax a baax ndax ku yokkul ku ne da ngaa wàññi te yoonu murit amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am noo ngi ci woo suñu bokki dong yëpp ak bokki taalibe bi yëpp di ci woo itam njabootu sëñ Muuru Xabaat gépp ak bépp suñu doomi sëriñ boo xam ne jaaroon nga ci daara yi te jaaroon ci daara yi tërbiya tàmbalee ko sëñ Taala moom ak sëñ Mamour Mbàkke moom sëñ Abdou Ngedd ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bi di wax ni liggéey bi itam xat na lool ci nun ci fii ni ci fi nu ci toll nii ndax dañoo bëgg mu yaatu ba nga xam ne dañ koy def fédération sëriñ koso ñu ngi ciy woote doomi sëñ Moodu xabbaan yëpp kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo ci liggéey bi ngir léggéey boo xam ne sëñ Moodu xabbaan moo ko moom sëñ Ibra moomu ko sëñ Saam moomu ko sëñ Koso moomu ko sëñ Moodu xabbaan moo ko moom kon noo ngi leen ci woo ngeen jàppale nu ci liggéey bi kër gu ci nekk na fa dugal aw nitam ñu àndandoo liggéey ci liggéey bi muy kër sëñ Moodu Xabaan di dayrëb kër sëñ Moodu Xabaan noo ngi ciy woo ñëpp di ci siyaar ñëpp di ci balu ak itam ñëpp bu baax a baax di wax ni la euh, ajjuma bii ñëw samedi bii ñëw la ñuy def dernière réunion ba feete kër sëñ Muudu Xabaan gu maggee ca ca Daaru Xuddoos ñu ngi cee woo ñëpp di ci siyaar ñëpp di ci balu ak ñëpp di wax ni dongay tër bii yëpp nañu góor góorlu te mobiliser te kenn ku ci nekk fa nga ca toll woon nga yokkaat ko noo ci ñaanal it bu baax baax suñu jëwri ñu ci àndaloon yëpp muy sëriñ Maam Mor moome di sëriñ Taala Mbàkke di Ceerno Ngom ba ci Baye Saalu Ngom mii fi mujj wàcc ab liggéey ak Baye xam xabanke bi ñoom ñëpp ñu ngi leen ci siyaare di leen ci ñaanal bu baax a baax suñu borom defal leen yërmande ak njéggal yéen sama bokk jigéen yi ñu ngi leen woo ci conférence bi képp ku ma bokkal sëriñ Moon Ndumbe rek ñu ngi lay woo ci conférence bi juróomi bunt kër sëñ Ndumbe yëpp ñu ngi leen di woo kër sëñ Abdou Assou Ndiaye kër sëñ Abib kër sëñ Abdou Oumy kër soxna Fatima Ndumbe ñu ngi woo jigéen ñëpp nag di leen soññ yéen ñëpp nag góorgóorlu soññ te xam ne siyaar bi suñu siyaare conférence suñu conférence amuñu lu dul déndee ñu takku ñun ñëpp ñun jigéen ñi maa ngi ci woo tam njiitu réew mi première dame Marème Faye Sall doo suñu ministre jigéen ñi soxna Fatou Diané maa ngi woo ñëpp di woo ñëpp di soññ ñëpp nag ñun jigéen jigéen ne kenn musu koo man ñun ñëpp nañ góor toog te xam ne am na bis bi bis bi rek moo nu ñor maa ngi ciy woo ñëpp. jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi mi ngi noonu muy siyaare général Serigne Modou Xabaan di am samedi le 6 janvier. conférence bi nga xam ne moom lañ duppee Serigne Ibra Khoudia ma doon taawub Serigne Mandoumbe ba war a nekk ajjuma le 5 janvier. muy barab boo xam ne nag ku fa dem da nga jóg ci suuf soo xam ne doomi Serigne Touba yàgg na fa yàgg na koo nootee waaye danga nga ci suuf soo xam ne it yàgg nañoo liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ay sàq di ko dugal Touba Serigne Mandoumbe moom mu nga xam ne bi Serigne Touba dem ci géej gi moo ko ne woon Mandoumbe njaboot gaa ngi noog loo bay yëtal ceerno mu dundale ko njaboot gi kooku nga xam ne keroog ba mu wàccee liggéey sëriñ Mudu Mustafa moo wax ne abdaal yi toppoon sëriñ Tuubaa mën du mbee ci mujj te sëriñ Tuubaa wax ne askuruhu wa xaadalil abdaala kama kafaanil harba wal jidaala bis boobu la ñuy wootee le 6 janvier ca dëkk ba nga xam ne moo di xabbaan euh, moo di euh, déndey sëriñ bi nag nee na mi ngi koy fàttali monsieur le maire Abdou Lahad Ka waaye di ko fàttali maire bu Mbàkke waaye di ministre Gallo Ba di ko yëgal it nag mbooleem koo xamante ne bi rek Serigne Touba moo defaroon sa maam di ko yëgal mbooleem dawaayir yi nga xamante ne bi ñoo nekk biir Touba moo xam muy daayira Hizbut Tarqiyyah daayira Touba ca kanam ak daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Rabitatul Quraaniya fa ab daayira mën a ne tey liggéeyal Serigne Touba rek ña nga lay tàllal loxo di la woo déndey di ko yëgal seexi Serigne Touba yëpp di ñaan képp koo xam ne teg nga sa tànk déndey yal na yàlla fóot la ciy bàkkaar bam seet wicc wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu